après gars yi waat ko ni ko non procureur il s'autosaisit de façon assane duñ ko bàyyi ñu téye ko noonu la fanaane na léegi indi désistement on attend y a de l'espoir ñu bàyyi ko ñu leen ko doon wax ci ko euh, xibaar yi dañu àddu wax ci lakk gu doy waar wu ñu nemmeeku euh, niki démb ca euh, Palmarin te ab way dencante daal ci faatu ak seen i doom bu toll ci benn at ci résidence Palmarin ne ca Saly jëriñ ngi ñu dénk wàllug tourisme niki tey caltine gi dem na ca gox boobule sàkku it ci mboolem seen ak tourisme yi ñu daal di respecter normes sécuritaire yi gérant nag moom teg nañu ko loxo ba jamono ji ma nga ca loxo yi police Aline Badara Sonko ci suñu ay sources gérant villa bi nga xamante ne ñoom bi fa la amee woon ba ñetti nit daal di ci ñàkk seen bakkan moom jamono ji moo ngi en garde à vue ca commissariat urbain bu Saly luñ koy toppee mooy euh, homicide involontaire waaye tamit nasaxal dundinu jàmbur ci première information yi nga xamante ne jot nañ ko taataan ci enquête bi li ñuy xamal mooy euh, lakk bi li ko waral mooy ab coup kii waaye tamit euh, gérant bi li ñu koy toppee mooy dafa daan loué kër yi clandestinement te sax ñi nga xamante ne ñoo moom yilee villa du leen ko sax yëgal ci fàttali ci weekend bi villa bi dañ ko léewoon ab couple jàngalekat bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi bàyyeekoo ca diwaanu Saint-Louis ba lakk bi amee nag ci la ñàkk seen bàkkan bokkoon ci seen ab liir bi nga xamante ne benn at kese la amoon na Abdoulaye Mbow mu mel ni gox boobee bëriwaana euh, xeetuk lakk fa fayam boo fàttalikoo amoon na lakk gu métti gi fa amoon alors jamono ji est-ce que yemoowul ak euh, solo suk wooteeg jëwriñ ji ci ñu mën a respecté wala wàccoonteeg euh, normes sécuritaires yi. normes sécuritaires yi vraiment dañu si ko war a matal ba ba ko war a matal sëkk. Mm-hmm. parce que itam du jëm si li nga xam ne moo di infrastructure boo xam ne dañ siy liggéey xaalis ay nit dafa ñëw war fa mën a noppalu ko si war na respecter toutes les normes sécuritaires si wall woowu nag au delà du ministre bu ñu tudd protection civile civile daf fay nekk defe naa ni war nay gën di mën a saytu béréb yi nga xam ne effectivement yu demee noonu la ndax effectivement respecté ñu lépp li nga xam ne musiba bu amee sapeur pompier bu ñëwee amaan dina xam ak naka la fu ñu bouche d'incendie nekk ñu war fa mën a am ndox gu doy goo xam ne dañ ko fekkee inc extincteurs yi est-ce que itam normes yi respecté nañ ko ba nga xam ne lu autant d'extincteurs yoo xam ne war nañ ko dëpp ci biir hôtel bi ak nga xam ne moo di brigade de surveillance et d' intervention boo xam ne amaana warul nekk na si personnel bi pour mën a dimbali nit yoo xam ne dañ fa nekk amaana nga yow guddi tàq-tàq am laata sa pompier di ñëw ñi nga xam ne ñu fay liggéey war la mën a dimbali def naan yëpp war nañ see liggéey parce que tam boo fa demee di noppale ko sa kaaraange war na mat sëkk sanction yi tàmbali naa war de Haj Mansour ndax gérant ba moom euh, euh, saa si tembe teg nañu ko loxo loolu lu normal la bu fekkee nit faatu na ci benn béréb boo xam béréb bu noppalukaay la foog ñu arrêté ko pour continuer enquête bi mais duma ma gaaw a gaaw a euh, plonge ci ñiy wax wàllu insécurité ci béréb yi ñuy noppali ko ci Petite Côte du ma gaaw a wax loolu parce que bari na ñu koy wax.